amis téléspectateurs de Leral TV et de Leral point net asalaamaaleykum comme naka ni ñu koy defee ba tey rek si jamono ji ñu ngi ci Thiès sama ginnaaw nag benn quartier bu ñuy woowee cité Lamy moom lañ ko duppee bokk na nag ci ñaareelu quartier yi nga xamante ni ñoo gën a yaa fii ci Thiès loolee waral nag leeral point net Leral TV ñu daal di fi war a dugg ci biir uh, xool a dëkkuwaay bi naka lañ koy dundee waaye itam côté infrastructure côté éducation léegi léegi lay doon ci seen biir reportage da ngeen may topp ma ànd ceeg nag ah sant yàlla rek julli ci yonent bu tedd bi di ñaan ci yàlla li nga xam ne moom lañ bëgg si talamin yàlla defal ñu ko jafe-jafe yi bari na si talamin moom jafe yi bari na si talamin li ñuy jànkonteel bari na jigéen ñi liggéey ñu defuñu dara lu ñu man ñoo koy mënal suñu bopp di fortaatu di jaay di yor suñu njaboot di dimbali boroom kër yi ak doom yi góor yi nekk ci biir kër gi ci loolu daal la xam ni moom bari nañ ciy jafe-jafe rawatina nag sunu doom yi fi nekk kenn xëyul kenn gontu liggéeyuñu defuñu dara ñun li ñuy jànkonteel ci Salamine bari na sama doom xoole sunu mbedd yi amuñu fu ñu tuur ndox ci mbedd yi lañuy tuur gisuñu oto mbalit gisuñu dara surtout nag financement yi nga xam ne day dugg ci Thiès ndegam dugg na fi laay wax ñun gisuñu ko si Salamine daal ñoo ngi nii gisuñu dara luñ ñu boole te bëgg nañoo bokk bëgg nañu sunu doom yi liggéey bëgg nañoo jàppale jigéen ñi ku ñu jàppale ñu jël te ñun nag dañoo yomba jàppale ndax bi ñu kenn jàppale wule sax dañuy jàppale suñu bopp di jàppale suñu njaboot di jàppale suñu borom kër yi kon ku ñu jàppale ñu jël si te tamit jafe-jafe yi bari na mais nag ñoo ngi toog di leen déglu loo xam ne lii daal war nay dugg ci Thiès war nay egsi si Salamine gii te bu egsi si Salamine dinañ xam ne sunu doom yi jàmbaar lañu ndax ñu ngi bay seen waar taxawaaluwuñu demuñu fenn bëgg liggéey rek mu mel ni fii ci Cité Lamy bëri na ay jafe-jafe yow ban côté nga mën a dikk ak ñun ci waaw jafe-jafe yi bëri na euh, muy problème infrastructure assainissement euh, même école aussi sunu doom yi jàngi aussi am nañ problème parce que mm, ñoo ngi à seize mille habitants seize mille ou dix sept mille benn école élémentaire kese moom moo fi am sunu doom yi dañuy jàng ba am entrée en sixième. Euh, di traverser ñaari tali la ñuy traverser pour mën a dem si CM jàngi te xoolal xale bu am douze ans 13 ans di traverser tali le matin et le soir ak danger yi fi nekk euh, te Cité Lamy daanaka comme niñ koy waxee rek euh, ku fi falu ci est bi nii Cité Lamy moo la fal donc nous nous méritons pas li ñuy li ñuy teg nii. il se trouve que fii ngeen nekk ni présentement mu nekk une école mythique école Cité Lamy alors euh, ñu créé ko depuis les années euh, soixante première génération yi fi jaar ñu fi ñëwee avec deux salles de classe mu nekk suñu gannaaw nii depuis lors nag euh, suñu papa yi nga xam ne ñoo fi jaar un peu ci comité bi ñoo ko amélioré tey ba yàlla def ñu am environ seize cases seize salles de classe alors ñu ngi ciy góorlu bopp ak léegi ñu bari nag jaar nañ fi ci gestion bi ba tey yàlla dogal ñun ñu ñu ñu teew ñu nekk fi bu ngeen ko gisee école bi nekk na école boo xam ne école bu mag la ay cadres yu bëri génn fi ay autorité yu bëri génn fi ñu formé fi aussi tamit euh, presque ay personnalités yu bëri ñoo xam ne tey ñu ngi sax ci ci état du Sénégal mën naa ci citer rek euh, quelque ku mel ni le ministre Cheikh Omar Anne mu jaar fii ci école bi ak yeneen ñu formé fi ay magistrats génn nañ ci école bi des avocats des imams. et cetera et cetera. tant que yaay mu mel ni tamit des fois dañ leen di jam baaraam tuuma ndaxte dañuy nii bu ñu bàyyee ba élection yi ñëw ñoom dañuy ñëw homme politique yi dañuy ñëw di leen neexal ngeen fàtte jafe-jafe yi ngeen den dund ngeen voteel leen. waaw bari ñoo xam ne bala ñoo xam ne si Lamy am na ay élection jubse bu élection yi jub see sunu mbedd mi day mel ni sabar gu tas subaa ngoon guddeeg bëccëg ñu génn di leen jàppale bu ñu amee lu baax duñ kon xam nga ne loolu metti na nit danga nga koy fàttaliku balaa lu méttee ñëw bu lu di dikkee mu ànd koog yow ba mu jeex soo ca amee ndam da nga ko cay jàppale soo ko cay jàppale bu ëllëgee di nga am bu dara xewulee di nga am fitu dugg ca koñ booba waaye bu élection jub see ñu war a nekk ci campagne da ngay gis sunu mbedd mi oto yi ñuy def seen tànk tànk di dugg ci biir kër yi di waxtaan ak ñun ñun ñëpp ñu génn mobiliser wu xam ne rek ci dëkk bi lañ dëkk ku dëkk ci dëkk bi nag da a bokk ci liy defar dëkk bi waaye ñun liy defar dëkk bi ndegam am na fi ñun gisuñu ko ñun waa Salamine gisuñu ko moom te dañ leen di jàppale yore nag suñu carte waaye ren moom fas yéene nañu suñu koñ bii ñoo ko moom képp koo xam da nga fiy dugg di fi ñëw di fi lijjanti leneen te ñun ñu war caa génn di la jàppale gisuñu dara dinañ toog di banque suñuy baaraam toog di la xaar te nag dinaa la ci tegal ne la école Salamine bi kenn moomu ko ñoo ko moom kenn ku dikk da nga fiy wàlliance école Salamine ñoo ko moom te ku fi mës dugg rek am nga fi ndam te ñun ñii ñoo ko waral ñun waa Salamine. gis nga mbedd yi mbedd yi foo nit ñi dañuy tuur ndox service d'hygiène chaque jour dañuy ñëw di marqué sunu yaay wala sunu sœur di leen dem service di leen di leen fayloo te buñ ko jëlul ndox mi buñ ko tuurul ci mbedd yi mënuñu ko naan amuñu fenn fu ñu ko tuur. cri de cœur la daanaka fi mu toll nii euh, am nañ association boo xam ne sax jóg na pour les problèmes de la cité muy ànd siggil cité Lamy daanaka dinañ ko jël parce que ñun dootuñu nangu fi mu toll nii nekk vache laitière bi dootuñu nangu nekk faiseur de roi yi ñun bëgg dañu bëgg a doon roi. voilà nga dikk ak ñun ci taux de réussite bi jamono ji ndax su la déggee autant école bi doon na def ay résultats yu baax ndax ba léegi ñu ngi koy am. waaw euh, résultat yi day yéeg ak wàcc. day yéeg ak wàcc mooy ñun li nga xam ni mën nañ ko vraiment ci années yi passé yëpp def nañ ko école bi dem nañ fi sax ba am ay taux de réussite de 80 pour cent 77 euh, pour cent et cetera euh, cette année passée il y a eu le euh, la la pandémie du Covid bi nga xam ni moo xawoon a freiné un peu sunu élan bi ñu amoon au départ ce qui fait que bon xawoon na xaw na ralentir un peu feeñ na un peu ci résultat yi mais n'empêche yéeg nañu baar bi ba dépassé. 60 euh, pour cent 60 euh, jëm 77 pour cent te loolu c'est pas négligeable ñu gis ni peut-être euh, s'il y avait pas cet arrêt là du Covid doon nañ mën a gën a def un résultat beaucoup plus performant que que loolu. mu nekkoon nag seen grand reportage ñu doon ko amal fii ci cité Lamy gis nañ ñi nga xamante ni euh, mooy intervenant yi lépp li nga xamante ni wax nañ ko ñoom nag ñu ngi sàkku bu baax a baax ngir ñu gestuwaat leen naam am na ñoo xamante ni ñu ngi leen di jàppale waaye nag infrastructure ñu ngi koy jooy li nga xamante ni moo di éducation waxi noppi cohabitation bi aussi demul euh, mu des li nag moo nekkoon li ñu leen doon la ci euh, fii ci Thiès ñu leen di jox nag dig daje ëllëg incha allah ci beneen museer.